Matar Diop fekk baax fii ci Nord doon fi Yefam mooy def campagne ngir falat Macky Sall ci yi ñu ci 24 février ci loolu campagne bi mi ngi ko ay visite de proximité maanaam dox nemmeeku dëkkandoo yi ak am di jàmm yi jaaree ko ci jaaykat yi mécaniciens yi ak tailleur yi def na sax ay fàttali ci li Nord ci l'hôpital bu bees ak yeesalaat tali bu dee ñaay jaaree ko tali bu xonk jëm ko mi ko li ñu fi tey lenn rek la mooy fal Macky le 24 incha fal Macky Sall nag dafa am fu ñu ko teg gis ngeen xale yi ngeen gis nii ay jeunes la ñoo xam ne ñu ñii ñu ngi doog a am seen carte électeur ñi gëm Macky Sall ñëw ànd ak moom pour falaat ko li tax ñu war koo fal ñun ñu dëkk yëmbal wax ko kii tubaab mooy hôpital bii ngeen di seen nii hôpital bu bess la bu ñuy daj ci carton ni ko xal ni ko xale di waxe bu bess tek lañu tabaxal fi à niveau 2 nga xamne so soo demee wala nga dem principal wala nga dem fan lepp lu nek am structure fofu mu ngi biir hôpital bi lolu Macky Sall moo ñu ko defal kon di tey xam nga wérgu yaram lu am solo la ci doomi adama donc su ñëwee xalaat yëmbal tabaxal ñu hôpital bu mel ni lolu rek war naa mun tax ni ni ni ñu falaat Macky Sall infrastructure yi maanaam mooy tali gis ngeen route de ñaay bi ñu ngi chantier bi commencé na pour ñu élargir ko nga xam ne sooy dem de daa Dakar doo am benn problème boolewuma si terre bi nga xam ne daf koo indi mu concerné caaro yi concerné yëmbal ñu demaat nga dem tali bu xonq tali bi def na ko fa nga dem Comico def na fa tali. ci njeexital mu sant waa yëmbal rawatina ndaw ñi ak jigéen ñi ko gunge ngir falaat Macky Sall dès le premier ñu jëm ci inondation yi nga xam ne su daan taw borom kër yi yëpp dañuy jaaxle du ñu xam ne ñuy def président ñëw indi xaalis bu bëri indi fi ay ingénieur chinois ñu jëf fi ay ay ay ay ay assainissement bu am solo ba xam ne léegi foo su tawee sax ñi dañuy nelaw bay xandoor loolu rek bilan Macky Sall la moo tax ñun ñi gëm ko gis ngeen mbooloo mi tey ñoo ñëw tey ànd ak ñun pour que vraiment ñu won population yëmbal que jeunes yaa ngi ak Macky Sall te le 24 dinañ ko falaat incha allah.